digal di ñu jot leloo ab nuyoo ak siyaara ak kàddu cant ci suñ kilifa gi toog Cheikh Mouhamadul Habib kon Cheikh Mouhamadul Habib sa bokk yu baax yi nee na ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay siyaara ñu ngi sant ci turam mboolem waa Touba ca kanam ci yëg yi nga xam ne ak yitte ji nga xam ne war nga leen sa jataay bii te muy loo xam ne ba Touba kanam loolu ba tey yaa ngi koy looy ndax bokk nga ci mbooloo mi lu yàgg loo xam ne ñu ndaw sax woon ne bokk nga ci mbooloo mi ba mu jugee nga ci bokkoon ànd ko ak ñun bi yàlla dogalee sa kilifa bu mu nekkoon ko ñaanal mu nekk ci law sax ñu jéggale ki yow mu nekk dara ci bàkk maam moom dara jiy bàyyi bi nga toogee jataay bi it nga ubbil say bunt Tuubaa ca kanam ànd ko ak ñoom bi sëriñ xëy bu jógee ànd la wax suñu la wax suñu nga war na pas-pas ak yitte ak fas yéene ànd ak ñun liggéey bi soññi ji soññee ji xamle na it am pas-pas ak yéene yi lépp lu ñuy liggéeyal sëñ Tuubaa kenn la ci ma rawatina lu jëm ci dëkk bi te loolu it ñun ñi nga xam ne yàlla dogal na ñu xam la bu yàgg-yàgg xam ne danoo mën na wax ne danoo yeewoo fi sa ci fi sa wet naka jëkk xam nañ ne ci loolu la ñu mos nekk kon sëriñ bi nee na moo am nañ mbégte moo xam ne mbégte mënu koo kawe ci jataay bii nga ñëw teewee ndax bi yàlla dogalee ñuy xalaat def lii di xalaat fu ñu koy def bi ñu xalaatee daaw bii bi la sëñ bi bu woo wax la ko noonu te nun ñi xam mën na noo waat ne noonu ko waxee noonu nekk ci yow bi yàlla dogalee sëñ bu yabal ma it ma àndoon ak ñoom mm, ne Ndiaye Cheikh Amadou Gueye fii fekk la fii loolee nga wax si loola nga fekk la daal di woo ki nga xam ne moom nga fi teg di ko saytu loolu ba mu ñëw nag mbàkki kon na ci ci waa Touba ci kanam ñu koy jottali loo naa ci jottalee ko niñ ma ko waaye am naa yéene kon nga xam ne Touba ci kanam gépp seen xol sedd ci yow gis nañ ni nga leen jàppe gis nañ ni nga leen jàppalee daaw bi it noonu nga ko waxee woon ñu ñëwee nañ ko bëggee ñoo taal na suñu bopp fi ñu koy def ñoo nattal suñu bopp météo yi ñu soxla te nga ñu boolee loolu it nangul nu na nga leen ko nag mbàkke na nga xam ne suñu xol sedd na ñu suñ xel dal na suñu yaakaar dëgër ma ndax kuy liggéeyal sëriñ Tuubaa kilifa goo xam ne kenn ku nekk xam ne li doon sëriñ Tuubaa ndox sëriñ Abdoulahi ku ne xam na ne la mu doon sëñ bi ku ne xam na te yaay tey jii nag yaa toog ab jataayam yaa fi Cheikh Abdoulaye kon soo àndeek noonu may nu bàyyi nu xel noonu yaatalal noonu rafet noonu njortalal na sunu xel ci ne lii muy def gëm nañ ne lu sëñ lii luñ mën a dajee nga mu sëñ Tuubaa kon daal ab xol bu sedd dafa mënta yeesu xol bu sedd waaye na nga xam ne daal muy sëriñ xew yi muy sëriñ tàkko muy nun waa Tuuba ci kanam gépp suñu xol sedd na ndax boo defoon loola yamoon ca cap muy nangul nekk fii di fi liggéeyal sëñ bi nga jox nu baro bi yam na waaye tey jii nag nga ñëw ko ak ñun teew kon loolu na lool moo tax nag bis bi bi tàmm biñ ko xalaatee di ko def fii sëriñ xew bi wax ne nañ la dara jaale bis bi bi na la ko waxee it danga koo xamal ne ko lépp man dara yëpp teg joxaat naa ko sëñ Muntaxa moom moom moom moom mooy borom nawet yi loolu nga nga ca teg kon boo ca boolee lu ñëw teew ak xataayu màggal ak sa itte fi mu toll wax dëgg xam nañ ne itteel na la kon mënuñ lu sant la ak ñaanal la kon sant nañ la ñu ngi lay ñaanal suñu borom yàlla na la yàggal lool te may la ak wér di bakki bi nga toogee yàlla na nga ci defal sa wayjur lu sedd ak xolam yàlla na nga ci am ndam loo xam ne kenn mës sa wuutu wayjuram ba am ca lu ëpp loolu yàlla na la ko yàlla defal di bakki sëñ bi war jërëjëf Mbacke jërëjëf jërëjëf sëñ bi